projet bi nga xamante ni dañ ni woon dafay diire mooy route bi di jógee marine française jaar kunun ngalab dem Fass kunun ñuy waxoon ni durée bi huit mois la euh, ñu commencé ko le 2 novembre normalement xam ngeen mois de juillet kon la waroon fekk mu ñu livrer ko léegi euh, yéen dem ngeen sur le terrain gis ngeen li fi nekk commencé nañu les travaux arrêté ko tey c'est la énième fois donc bu njëkk arrêt bu njëkk ba dañ nañu woon Euh, euh, am na jarul ma di ko évoquer sax bu ci nekk suñu laajee am na ñu doon waxtaanal euh, ñu yore projet bi à chaque fois dañuy wax lii moo tax mu am arrêt mais cette fois-ci amuñu sax interlocuteur ñu daan waxal koo ci woo mu ne la dinaa la revenir duñ la wax lu tax mu lu tax mu am arrêt te gis ne état bi route bi nekk buñ fi hivernage bi fekkee day piir que liñ daan dund ndax tali bi li fi nekkoon a kus néew sax ñu ciy góorgóorlu di ci jàll cette fois si bu liggéey bi parewul kenn du demati di dikkati te euh, hivernage bu ñu fi fekkaan sax ak li fi nekkoon sax ay charrette lañ daan jël benn oto du te tey ak état bi ni mu mel su boobaa charrette sax dootuñu ko mën a yee génn ndax gis ngeen tali bi dañ koo creuser bàyyi fi profondeur boo xamante ni nii tey euh, tuuti ngeen fi gis mu am basalte ah. mais si kanam lu bëri bu ngeen euh, demee di ngeen gis que ni creuser nañ ko dindi latérite bi mu def euh, benn trou boo xamante ni profondeur boobu bu fa ndox ma ñëwee ba dajaloo fa kenn du demati kenn du dikkati. Euh, assainissement bi aussi nañ ko ci jëlaale ndax biñ demee ba ci biir dañ wax ni ñi exécuter route bi mooy mooy AGEROUTE ak Enanchin ñoo koy defar volet assainissement bokk ci ndax du seen domaine. nañu saisir les autorités compétentes ñi nga xamante ni ñoo war kii ñun def nañ ko def nañu ay correspondance ñuy alerter autorités yi pour wax leen nañ ñu ñëw jàppale ñun population de Kounoune fexe ñu eggal ñu tali bi